tara ñaanal la jàmm ak salaam ak sutura yàlla defaloo ko ci barke Cheikhul Khadim yaakaar naa boo jàkkaarloog Njaay Jamil euh, bu oustaz Mouhamed mbay dana la neex lool dina ma neex ndax mhm. olof nee na ki nga jege mu jagal la bu la jigee bu fa jugee man ak moom ñoo bokk ki nu jagal muy man Mansour si Jamil bi mu ñu jigee ba tey jugee guñu fa euh, ñaanal yàlla xalifa général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour yàlla sàmm ko daal di ko aar ak ki nga xamante ne mooy xalifa Serigne Babacar di xalifa Maam Malick Sall di xalifa Seydil Jamil di alxaaji Mansour si Jamil di suñu wasila waaye nuyu bu baax a baax sama yaay sama xarit Adja Habsa Fall uh, mi muminin yaa Zeyda moom itamit tabaarakallaahu moom xam nga sama seex la moom day wéeru ci man may wéeru ci moom nuyu bu baax a baax tabaarakallaahu ki nga wax ni l'infatigable de l'islam laa ko tuddee muy Chérif bu Seydi Sawlaay baax disponible yaru loolu am yëg loolu ak ñi mu àndanteel ñoom membrane ak ñëpp li ma ñoo bokk fa nga xamante ni fa ni ñuy naane ak ñi mu àndal rawatina sama seex jabel tabarakallahu jërëjëf al oustaz Sayda Hafsa nuyoo bi am na solo uh-huh. euh, tey nag ñoo ngi yem ci son excellence waaw une semaine son excellence boo xam ne nii ki ñuy waxtaanee uh-huh. mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam na Makka sangi Makka ak Madina moo xewle yaakaar naa ne ñëpp a koy bégee ñu ngi leen di bu baax suñu am. Mm-hmm. di la nuyu di kontaan bu baax ci yëf yi ni muy doxee. Mm-hmm. ni ko bokkee di la bégee bu baax. Mm-hmm. waaye di nuyu waale Mouhamed sama doom. sama seex comme ni mu ko waxee macha allah defoon nañu ko daaw. fekke fekke ren. daal di baaxantal ñu am fi koo xam ni moom ndeysaan soppe réew mi la. Euh, vraiment ku bëgg bennoo euh, jullit ñi la. Euh, sëñ. Euh, Ibu Seyni Lay mhm. nga xam ne yàgg nañoo toog ak moom ay plateau ñu mhm. ko bégee bu baax lay maxtaar mhm. ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu waa Yoof yëpp di nuyu waale membran waaye euh, Ndiaye Jamilit yaakaar naa réew mi xam nañ ko dëgg la maanaam tey bu àddoo ci yoon ci yàlla Muhammad dëgg la ñëpp dinañ dinañ dinañ nuyu waale nga xam ne ñoom la àndal di nuyu ñëpp di ndokkeel jullit ñëpp ci weer wi nga xam moom la ñu dugg nga xam ne weer la woo xam ni mhm. weeru yaakaar la mhm. ndax ki gën rëy ci ñun gën a foor ci ñun nekk yaakaar àddina ak àllaaxira mhm. sango Màkka ak Madina ci weeru lañ ko yàlla jox muy son excellence comme ni nga ko waxee léegi alayhi salaatu wasalaam jërëjëf eh, yaa sayda ñu am mbégte baax fay la nuyoo nuyu bu baax a baax Serigne Ndiaye Jamil eh, danañ ñëw léegi ci mu ubbil ñu tey ndax moom la ñu fas yéene àndandoo Eh, ci matxu yi abiyaat yu am solo yi nga xam ne ni xam naa ni mu jàkkaarloog saa sax mbir la du zaayir eh, Chérif bu ñu la nuyoo jox la sa wàccuwaay Sen TV moo leen dig à partir de vingt bu nekk mu ñëw yéen gunge leen ci weeru màgg mi nga xam ne lu ne xew na ci ñu am mbégte bu baax dalal la Eh, nuyu suñu directeur bi nga xam ne am àndal liggéey bi muy Serigne Pape Diène mu am ci mbégte lool ci recevoir la ci plateau bi bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateur bi eh, oustaz ba innahu is aradallahu nashatana abaana min nuurihi nuuru nabil alam ku bëgg ak ku bañ ci yonent bi nga jóge dont nit nga rek yaa ngi bokk ca ca eh, wax jooju moom maam Maodo dafa ni lii mbir tey mbir lii doomu aadama rek yaa ngi jóge ci Seydina Muhammad ci bisam la ñu ne ci ay weeram la ñu ne lépp sax bisam la wara dañuy jaar foofu di nuyu suñu xalifa euh, Pape Doudou Mokhtar ndeysaan yàlla bàyyi ko fi di nuyu sama papa ju baax jële ci Tiwaawan muy sëñ Mbay Si Mansour ku baax ku yiw nga xamante ni su dëgg la yàlla na ko fi yàlla bàyyi moom njabootu Seydi Hadji Malick ba Mansour Jamil mën na koo bañ a nuyu parce que njabootam laa nekkal taman ci njabootam laa bokk maa ngi koy ziar bu baax di nuyu nag sama bàyyi boobu sëñ Mountakha Bachir di ko ñaanal moom njabootu Seexul Xaddim yàlla defee leen jàmm oustaz lu dul jàmm jàmmaa ko gën nañu sàkk jàmm te bàyyi sànnente xeer bi nan ut jàmm dëgg la salaamaaleykum rahmatulah. jërëjëf Serif ñu nuyu ko baax a baax annonceurs yi téléspectateurs téléspectatrices yëpp ñoo ngi leen di xaar ci seen euh, émission bu mag bi nga xam moo tudd yóbbalu gàmm ñi ngi ñaanal baax Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla dëgëral ko kattanal ko euh, may ko mu yeggale waaye noonu la ñu nuyoo Serigne Babacar Sy Mansour mi nga xam ne xam ngeen ne fan yu néew rek incha allah ñu tàmbali li nga xam ne ni mooy euh, bordu bi Oustaz. alaaji tey jàkkaarloo nga koo xam ne mën nañ ko lancer question bu universelle. 124 mm-hmm. 000 prophètes moo am sallallahu alayhi chérif pourquoi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bindal boppam yàlla dafa dafa dafa euh, dafa bindal boobu waxal boppam ni fahaanul li maa yuriidu lu ma neex laay def kenn du ma dab na gaa yi bàyyi xel ci loolu lu bëree bëri bureau yàlla kenn dema fa kenn du secrétaire am amul ku fa dem ñëw ni yàlla nee na ma kon lu mu def boo bëggee am jàmm nangu ci ta nga noppi réew mi nag coow li bëri na yàlla moo tànn rasulilaay boppam. 124 000 prophètes yi muy lay ba 313 muy lay ba vingt cinq muy lay ba juróom ya looloo waral boo xoolee Moussa rek ci moom rek laay jël sama soppe Moussa Raan. Euh, dem na ci baaru xawsoom dégg yàlla muy wax waaye taxut ñuy nodd naan asadu annaka Moussa déedéet asadu anna muhammadan rasulillah parce que yàlla moo ko moo ko tànnal boppam sallallahu alayhi wa sallam yàlla bañoon bañ xam naa bu ndee bi ci defe naa ba ci biir daan ci xuus yàlla bañ ku ni moo dimbali rasulillah moo tax mu rey ñëpp avant muy juddu rey na baayam bi mu nekkee Seydi Hadji Malick wax dafa naa wax nag xaddaa bi ab waay Abdoulaye xëy na ma daa sëxraani lil xam li hada asquril kalimi doy na sëkk avant baayam di juddu rey na baayam avant avant moom muy juddu rey na baayam bi mu juddoo am juróom benni at sunu borom reyaat yaayam mhm. ñaari at mu reyaat maamam ama samaanin wa fatil jaddi saa ana min wa xaatamin wa anoo sarwaala zul karami koo koy Seydina Mohamed yàlla moo ko tànnal boppam ci jikkoyam ko tànnale boppam defe naa mat na sëkk ci moom ku ba xas bokk ci moom defe naa oustaz waruloo xuloo kenn waruloo fi ne di sànni tey xeer waruloo fi di ngay tudde nangam rasulilahi sallallahu alayhi moom mooy suñu royuwaay looloo tax yàlla tànnal ko boppam yàlla moo jël yonente bi alayhi salatu salaam jëlal ko boppam uufal ko boppam xotti dënnu boppam xatamat yum nal amin waqat waadi maalam tuzalo anbaa yàlla moo jël rasulaay tànnal ko boppam jël ko teg teg ci kaw ñi nii kon yàlla noonu yàlla taas ci barkeem ci barke bisam bu tedd bi defe naa lool rek laa ci amoon lu mel al oustaz dañuy jàkkaarloog Serigne Ndiaye Jamil waaw Ndiaye nag euh, dama yaakaar ni euh, incha allahu taala bésu tey bi mooy première euh, burdu bi nga xamante ne ñu ngi koy ibbee mhm. bu ñu sañoon nag dañuy barkeelu ci burdu buñ sañ ta bañ bu ñu paree nag daal di wasaaroo fu ñu neex jëm ndax li sama xarit wax sama naataangoo léegi sangu Màkka di Medina li ko yaa daal di dàkkantalee moo moo xewle dana <coughs> bi nag c'est l'anniversaire Aca Ndiaye doxalal salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalqi kullihim mawlana salli wa sallim daiman abadan wala ala habibika khayril khalqi kullihim الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا والله على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا حبيبي كخير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا العميم مولاي صل وسلم دائما ابدا والله على حبيبك خير الخلق كلهم منتقم

الخصام صلي وسلم واو حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير, خير الخلق كلهم ولطف بعبدك في الدارين إنا له صبرا ما تشدوا الأهوال ينهضمي مولاي صل وسلم دائما مصطفى على حبيبي قاب خير الخلق كلهم وأذن لصحبي صلاة منك دائمات على النبي بمنهل ومنصجم مولاي صل لوسايا لمدار من أبدا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 wax leen ko waxfir lana ma mada waxfir lana ma mada waxfir lana ma mada ya wa waxfir waxfir waxfir lana ma mada waxfir lana ma mada waxfir lana ma mada ya wasi'al karami macha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Ndiaye sant nañ bu baax a baax euh, Ndiaye mi neex na ma lool ah. ah. parce que tubaarkàlla yonent bi dafa neex a way. alayhi salaatu salaam euh, te boo duggee ci xilaat bi. balaa mu ni. kii rek mooy marketing bi suñu borom posé na xool leen ma ci moom alayhi salaatu wasalaam dama lay bàyyi nga ubbee foofu su ko defee yaa sayda mhm. ma daara ñëw ci yow nga daal li ñëw nag suñu invité bu mag bi oh, waaw euh, macha allah Mouhamed Ndiaye Jamil fi mu daane dafa neex yaa rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma bada yaa wasi al karami eh, cheikh bi eh, macha allah dafa am solo lool ci eh, li mu woy ci yonent bi waaye moom comme ñi ngi waxtaane nag njool màkk sangi màkk ak Madina bëggoon nañu xam nag kan mooy yonent bi Chérif. Chérif. كونيني وسخليني مصطفى جوجواي. هاي هاي والفريقين من عرب ومن عجم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم سيدنا محمد ولمن دخلت نور محمد صلى الله عليه وسلم جرجان مدينة لو من زير جنبي إلى زهري ولد عبد الله ابن فاطمة المصومية على قدره وساد فضله بين الأنام وكان يتلالو في جبينك الكواكب الضرية فمرت عليه خطيلة أخت ورقة ابن نوفل فنال لنفسها فقال الله أردى بالحرام عبد الله بايم ba ka jigéen ñi màkk ya sàkkoo ngir bëgg jur Seyduna Muhammad ñu ngay xool Abdalaay Abdalaay booleeg taarug arab ga ca moom ak leeru Seyduna Muhammad ji ko yàlla jox jigéeni arab ya mënatuñoo muñ Abdalaa ñu nga naako ko tee ngaa ñëw ñu ànd ak yow benn yoon ngir mën a jur leer gi ci yow Abdalaay naan leen amal xaraamu fal mamaatu duuna oo fal xillu laa xillu fast biinuhu jomba naa def lu ñaawa ñaaw ci leeru seyduna muhammad gii ma yàlla jox musa minu gan oman yoo di mawlida xayril bara yaa ahmada faka seydil zeyda badran bi xayri wuxami seyduna muhammad oman yoo di mawlida نبينا بعد الهدى ولا يحاسب هدى فاطر من واظم سيدنا محمد فإنه كمن خدر يوم الأنين والصبر ويوم بدر والنذر خير المفخم جوج واي جوج واي سيد المرسلين يا يا jox la ma ca laa ilaaha lalaaw nga toj xaram yàgg lu fay xamba te wax laa ilaaha lalaaw danay waral jigéen yàlla ak si ak dem ca peeyam baa waaye digal waa këram sikar ci góor ñee jigéen ña ngi reer di bañ fecca ak tàccoog waaye jëw gi xas jàmbaar sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla man nag euh, dama doon euh, neex na lool lool ndax euh, xol yu yu soppante. Mhm. bu ñu toogee rek ku yëkkati day bëgg. Mhm. waaye réew mi dafa toll foo xamante ni boo duggee ci TikTok bi ci TikTok bi sa yaram day daw. <laughs> te li nga wax sànq boo ko xoolee rek sa xel dem ci tarixa yépp mhm. tey ma bëggoon balaa ñuy dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko signification tarixa lan la ndax mate na ko pour waxtaane ko mhm. ba pare indil ñu ah lu sey donte benn bayit la lu maam Cheikhul Khadim wax yonent bi mhm. lu sey la Xaaji Malick wax yonent bi macha allah ak keneen ngir ñëpp mën a dellu si waat mhm. ah, euh, recadré waat waajal gàmm mu xam ni yonent bi rek moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa bëgg ñu ubbeeku macha allah euh, oustaz yal na yàlla dolli xéewal yi amin yal na yàlla def jàmm ci adduna bi yal yàlla def jàmm ci réew mi lu waay bëgg yaa nga xam yàlla la yàlla defal. amiin lépp lu waay soxla sa digganteeg sa borom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ah damay gis ñu yor course ba tàyyi di wax yaa allah. Mm-hmm. yàlla latiif te seen lépp a tag lu tax. naka mm-hmm. tagal seen xol yaa tax nañu defar sunuy xol. avant ñuy wax dara réew mi nañu yéeneenti jàmm. man nañu naxante suñu biir mais yàlla deesu ko nax. ku tëdd xam nga sa bopp coow li alxuraan ji bëri wàcc tante yi bëri na tagg yonent bi bëri na lépp nga ne kekk taxaw loo ko taxawal lan la parce que wax ci kaw wax ci suuf dafay yàq te nit ñi ñu ngi ci jamono ba nga xamante ni imaam balaa ñoo dem foofu ñu ngi ci jamono ba nga xamante ni yàqante bi bëri na balaa nga am jàmm sénégalais balaa nga am jàmm sa nit amidun am lu ko naqari nga bëgg nga bëgg ne yow jullit nga sa ba pare nga. quinze pour cent musulman waaw ba bu man li man loolu mënu ma koo déggoo kenn. parce que ñi lay waxal bu nu paree ñoo lay jëwaat. ñi euh, ñi bàyyi woon bu nu ko toppoon du ñu am problème mais problème yi bëri na li gën di nag la ñu wax war la. maa ngi daal man daal ñëpp ci jàmm. nañu yéeneente jàmm. ku ci ne boo tëddee Amidou xam nga yaay kan. waaye taxaw di sànni ku la ku dul sa morom xeer xamal ni sa kaw la jëm te Serigne Adi Touré nee na bul xas walliyu bul kay waaral bul kay doye dal ndax waayu yàlla la lee mu sànni law sànn nañu bàyyi tooñ ku ne na nga gëm ka nga gëm yàlla ci boppam ñi ko weddee ëpp ñi ko gëm nga bëgg ñëpp gëm ki nga gëm mënta ne su fekkoon loolu la ñëpp ci yàlla lay dem yàlla ñi ko weddee ëpp fuuf yaa say daal tam ngi leen fi bàyyi kon nanu soppante loolu euh, oustaz nga dëgg imaam ñii fi toog ñëpp suñuy soppale dëgg la ñii fi toog ñëpp suñuy soppe la dëgg la ku xaroon sama xol bi xam ne li may wax dëgg la dëgg te suñu bilaan mbàkk sama bàyyi daan na ko bu nit waxee déglu ko bàyyi ko ba déwén bu jëfee wax jàg jëf ga usaas mm. su àndee nee na jàppal goral waaye nit ñi dañ lay wax léegi léegi wedduwaat la léegi léegi amul solo kon nan xam ne yàlla rek fi ne kenn newu fi te bàmmeel mi ngi ñëw te leneen a ngi ñëw jéggi siraata ngi ñëw balaa booba mm-hmm. nanu bàyyi suñu xel ci loolu mm-hmm. euh, tarixa yi dëgg la Euh, oustaz. ku ñëwoon sama kër bëgg a agressé sama kër ma jóg jëflanteeg ñoom. ku ci am nga ku ci ne am nga kër. ku ci ne am nga famille boo bokk mais yàlla moo waxal boppam mooy magu mag ñi moom moom ñëpp. mais dafa ni waxta si bi xam laay jëmee an ba pare ni wala ta faraxu faraxoo boobu nag moo fi ne nag. faraxoo waaw. yàlla dafa ni l'islam benn buum la ngoyaalu leen ci bu leen tàgg mais tàqali ko bi am na. ñun noo jëkk a weddi waxu yàlla balaa ngaa weddi sëriñ yow yàlla nga jëkk a weddi parce que yàlla moo ne l'islam benn buub la nga yàlla leen ci bu leen tàkkale ko yàlla waxaan ni yéen julli ñi ay mbokk ngeen te na ngeen yëwanal seen digg yëwanalante bi amatul moo waral nit ne ci tiktok bi di saaga jàmbur te amul solo ki ngay saaga li ngay saaga ci kaw la jëm bu dee Seexul Xadim Oustaz li ko yonente bi may avant yonente bi wax naa ko démb fa ma doon waxtaane xaadim rasul avant muy dem Gabon waxuma waxu Gabon. avant muy dem suul na fukki doom ak juróom. waaw am na ci xur Mbàkke. Mhm. Seexul Xaadim suul na fukki doomam ak juróom. Mhm. coono bi coono bi mu jàngonteel jóge fa dem Mbàkke Bari dem tund jéewal dem kokki jóge fa dem Louga jóge fa dem Ndar bi soog a ñëw Ndakaaru mais fii la jaar. bin ko waxee ci yonent bi leen rek la wax. xaalima rasul nee na lépp lu ma am jox naa ko yonent bi lakk kalkali. lakk kalkali lakk juusati. ku sopp bàyyi Sëriñ Saaliw nii ngay def maa la ko wax. lakk xurbati wa mawaatini wal manzilo lakk malbasi wa yaraati والمداد دو مسربي والماكلو sopp Baay Sëriñ Fallu Mbàkke mhm. fi maskani fi maskani Tuuba late laka Amidou xoolal lii ni mu yàmbe ci man. waaw xoolal lii ni mu yàmbe ci man Ablaye Thiaw ma jur. waaw Seydina Isa moo ko jur. yonentam yàlla biy tëdd ci yoof moo ko jur. te kenn mënu koo dindi. lu man neex laay wax ci Touba. lu ma neex te li may wax wax ji ay nit taxul ma koy wax lu ma bëgg la man wóor na ma ni boo xalee sama xol di nga fekk Seexul Xadim wóor na ma ni boo xalee sama xol di nga fekk Sëriñ Babacar Si mu tëdd di nga ci fekk magu diine yëpp même que dul jullit di nga ko fi fekk parce que yàlla sunu borom moo ko fi indil boppam mm-hmm. Seexul Xadim lan moo tax sikar yomba ci man lu tax mu yomb ci membran lu tax mu yomb ci laay ni gars yi ñu war a poser question loolu boo nu fekkee kër ga bu nuy burda maa ngi waajal sama burda publicité wu ma mais maa ngi waajal sama burda insha allahu ah. Ah, maa ngi koy waajal bu baax a baax. bu nu neexoon ni ay laay nan toog waaye ñun ay jullit lañu. fa yàlla waxoon sama baay teg fa fa teg suma tànk. Mhm. sama baay rek ngay dem këram yaa Seyda fekk fa Cheikh Mbacke. Mhm. dëgg la fekk fa sëñ Mansour. Mhm. fekk fa sëñ Mansour bal xaw mi magoon ci Cambre. nga fekk fa sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou El Hadj Ibou Sakho nga fekk fa kon mag ñi benn lañ. Cheikhul Khadim. Aminu est-ce que dem ci géej gi yomb na. déedéet yow mi taxaw di wax. est-ce que ay course moom mooy pousse géej déedéet. déedéet Seexul ba muy dem ci géej gi dafa wax benn wax dafa ni rafiqi kitaabullahi. nee ni maa ngi ànd ak rasulilaay ànd ak alxuraan maa ngi dem man xaadimal Mustafa. ñu ne eh eh xaadim rasul nee na maa ngi ànd ak saaba yi jamono bi ma nekk ci géej gi di war man Seexul Xadim. la وزن الهداني هناك أسير ci gàttal Sëriñ Tuubaa nee na maa ngi dem ki tax may dem moo may kondir mooy rasulilaay dama jógee Mbàkke Baari jóge fa dem kokki jóge fa dem ndar jóge fa ñëw ndakaaru nee na ci la yonent bi taxawee sama kanam di ma kondir pour ma dem Mayumba est-ce que dugg ci géej gi yomb la yow mi toog si sa biir néeg yor sa internet tiim sa téere di wax loolu leen jugal nga dem ci géej gi nga xool mm-hmm. soo demee si Seydina Limaamu doo ñëwaat kon am na yoon jërte weddi yàlla moo nu ko demal muy sunu bànneex seexul xa xaddim lii la wax ci si li mu wax ci moom bëri na ku ne xam nga ni mooy xaadimu rasulullahi grade boobu rek la doon sàkku am na ko muy xaadimu rasulullahi moo tax maam jaara ma nga waatoon dafa ni leen ki may jur bu neex bu buñ tuddee turam yonent bi lañ ciy teg mu moo tax mu tudd xaadimu rasulullahi kon Serigne Touba lépp lu ñuy seet Seydunaa moom bu ñu demee ci moom daañ ko fekk ba gàmmu gii wax nañu ci lu dafa wax nu ñuy gàmbo taxzimuhu bi sunnati la wax am déet bi ziyaadi minnati li muxlisin moisimi ku dégg bo yooyu baatu arab bu la ko oustaz moom men bay firilee nga xam ni kii xam na gàmbo li ma loo xam xaraa مبجلا فخبها خيرات أهل الإمم فإنه كمن خلق يوم الأنين يوم الحسنين والصبر والصبر doy na ويوم بذل والنذر خير الورى المفهمين ku xamul gàmb dina wax lii neex na waaye tegal sa baaram foofu waaw ah, waaw góor gi di taaw. Seydi Hadji Malick. allahu akbar aywaay. gars yi nañu joxante loxo bàyyi xuloo bi. ñooy football sax ay ñooy football gis nga onze joueurs yi football. ku ci dugal bii baax na. borom tey siir. aywa aywa onze joueurs yi football équipe nationale. mais gaa yi boobaa ka ñuy fas kanam naan bokk ma foofu yow parce que doo jullit. yow génn réew mi. doo jullit yaa ngi yaa ngi jël la nga xamante ni. du dee <laughs> <laughs> am de waaw onze jours yi. yaa Seyda ku ci dugal bi baax na. <laughs> am na rek am Seyda ji Mali. dama daan dégg sama baay naan. dama daan dégg sama baay naan. bi rasulilaay nekkee ci gorot bi mu ne Maodo ngi ci suuf xam na ne xew. ñu ngi nan la kay xam nga ne wa kaana bat an. أنا جاء في الخرير والغوث لم ينام ay dëggal li anamaha madana mudabara hamadul وقد جاء في الخرير والخوت الأغيار محمد البشير وصلي لا إله في وجزيا أبدا لي أن محمدا مختار في يغمر من تزلزلت أصوات برهنة الملوك كك بات سلا ستة أيام بلا محمد البصير te xam nga sang bi du ci metti dañoo xaw a tawat man yàlla yàlla saafara man ci man laa buxati moom it looloo ko dal moo tax baat bi xaw a sawaanu waaye sama gars yi kontaan na nii rek la nii rek la Maam Maodo Si billaahi amul morom Ousmane Karim Murtada xam nga fan ngay déparé kan mooy waajuram mu jigéen maam Fawade Wele moo jur Seydil Hadji Malick maam Ousmane moo ko jur waaye waajuram bu jigéen ñu jéggal ma amoon na ñaar ñu ko dencoon yàlla weddi am de Abdou Boli Fall amoon na ca ak maam Fanta Ñang suñu maam pour ni la mag ñi bokkuñu ci mais maam Faa waa Dawele dafa waat ni kenn dootu ko dencati ci àddina na Mariama defoon la def mu gàddaay dem waalo ca Alfahima yoro kan mooy Alfahima ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay mu waat ni moom dootul amati boroom kër dama la bëgg xamal ni yàlla mayewul dara li muy mu yor yëpp da koy jaay ku jëndul doo am maam jaara nee na jënd naa ba am maam Faa waa Dawele nee na jënd naa ba am na yi jënd moo gën wax ju bëri ji am mu dem waalo mu ni bàyyi naa dootuma am borom kër mu ne ca waalo gis nga allahu akbar sama Moustapha Jamil Seydi Jamil dem naa ba waalo maa ngi koy wax si waaye dem naa ba waalo toog toog fi ko jisit yi doon wëri di ko siyaar maam Mansour dëgg daan jël indi ko siy bay tekk ci tekk ci keppaar ga tool boobu bay dee lu tuddoon ku fa bay dee sama maam ñëw bay fa dëgg dëgg loola am fa siyaar naa fa sama maam Jamil ba mu fa nekkee krokodil yi di ko wër di ko dem naa ba ca bërëb ba gis nga gaa yi nanu waa bàyyi weddi Serigne Touba nee na bunt yàlla yaa ngoo ubbul ku man demal nee na doo dem toog fi nga toog te ko dem ba ñëw nga ne ko demoo te yow doo dem sa bopp ngay sonal tade waaye Sidi Hadji Malick waajuram bu jigéen raat ñëw na ba waalo ni dootuma kenn dootuma dencati lu xew mu ne ca daara ji di liggéeyal waa daara ji di leen toggal Amidou di leen fóotal di leen jox ñuy lekk ba sa yàgg mu ne fa yàgg fa lool sama maam Ousmane jóge Gànjool dugg biir waalo fekk El Hadj Omar yi ne woon na ko ku fi ñëw góor yàlla ku fi ñëw jóge penku xaw ma lu mu fiy def waaye bu fi bu ñëwee bëgg soxla na ko ko may kon nga xool ni mag ñi seen jaar-jaar fa nu jaar tëbunu oote li ni oote jaar na nañu fa mag ña daan jaar kon Seydi Hadji Malick su yonent bi nekkee ci biir gorot bi mu ne yonent bi bi koy jibril di fekk fi fekk naa ko mu ne ba mu ko fay fekk nelawul waaye meen lam ko mujj def waxatta xoolil buluuhi jëhdi xaa ilatan faxra fa xaalalu homa daaka min nusubi moom alaaj maag moo niti lool jibril ñëw na fa ak ba mu ko fekkee ak ba mu delloo këram wa aba murtaidan min maa yara fasiyan fa xaa ilan zammiloo nii tarfal uman mu ngi ñëw ne xalijatu fëgg nga xadijatu sakkanat bil xalbi xaayilatan lam ñu zikallaahu fii daari ni laa tekki mi keroog loolu yëpp yonent bi xaajagul oote mais maam alaaji maa fekk naa ko kon nga xamante ni bu ñu nee mawlid ni Seydi Aaji Malik yellu na wàcc na soo ñëwee fii ci yoof ki nu teg ni mooy limaamu bis bu ne ma du moom borom fote noir et blanc boobu carré noir et blanc bi sama baay mooy taawam ko kookoy Seydina Issa Rohou Laye loolu beneen affaire la waaye bàyyi lay dégg naa jour Mawlud dafa jot mu jaar Ndakaaru dégg tukulóor yi gàmm mu ne gars yi lu xew fii ñu ne gàmm yonent bi leen gàmmul mu ne ay bu ñu xamoon ne que ni mi ngi ci tefesu yàlla gi kon dinañ ñëw gàmm ak man fii ci man c'est daal imaam la mu waxoon mën a démb ba tey euh, amin bàyyi laay jàngul bindul kenn gisu ko ay tere kenn mënu la wax ni sëriñ bi moo jàngal Seydina Limaamu te nag géej dégluwul kenn ku dul yàlla bàyyi laay bi mu nee géej dàq ko mu puus fa la defe naa foofu foofu la tëdd ba tey kon lu nu mën a wax ci ci réew mi am nañu ko kii taxaw borom kaala yi kii sama baay mooy taaw sama turandoo topp ci Serigne Ousseynou laay topp ci Mohamed laay Seyni Mohamed xam na leen bu baax a baax bàyyam mooy Seydina Limaam moo tëdd ca Yoff moom moo tëdd ca Cambérène kon gis nga réew mi nañu waxtaan de ut jàmm lu dul jàmm rek jàmm ko gën yàlla yàlla jàmm ci réew mi def jàmm jazakallah jërëjëf euh, Chérif ñu sant la bu baax ndax euh, ni nga ubbee lu am solo la mhm. yaakaar naa Oustaz Mohamed lancé na question bu am solo mhm. bu am te loolu lu jafe la ci réew mi actuellement fi ñu toll mooy fexe ba këru diine boo dugg rek ñu jàpp ne foofa nga bokk dëgg la waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu mhm. jamian ji am na solo waaye wala tafarraqu ji moo gënal yàlla mhm. mooy fexe mhm. ba nit ñi bañ a ne ko Sëriñ Tuubaa waxoon wajtahidu fi taa'ati rahmaani haysu takunuuna bila udwaani topp leen yàlla ci eh, ama am solo la waaye waxtu bu nekk ci heure bi na ngeen ñuy xaar ci seen télévision eh, di seen TV incha allah danañ ñëw ci burdu bi fas nañ eh, dugal ko ci biir programme bi waaye itam danañ ñëw ci ay conférence dossier boromi xam-xam teg débat bi posé ko kan mooy raddi kan mooy mooy ki nga xam ne ni oustaz Mouhamed wax na ko mooy pôle bi mhm. képp koo mën wax ak ceebam lu mu niin genn mbanagee ko toog mooy Seydina Mouhamed alayhi Seyda Bala ñoo jàkkaarloog Serigne Ndiaye Jamil ak Mouhamed parce que dama am question ko bëgg a daa am lu man lu mu bëgg bàyyi te loolu du ma ko nangu waaye dama bëgg présentation yi ñu ñëw ci li Ibou wax Chérif wax lan la wax mooy ki ñuy waxtaane moom la makaarimal axlaax yëpp daje ci moom Seydina Abou Seyda waaw moom la waaj waxoon na ko law kaana insaanan taxayyara millatan maxtaara illaa dinakal fuqaraaw parce que li mu wax rek mooy boole bennoo bëggante te yàlla tax loolu nag li koy def mooy làmmiñ ak tànk ak cër ñoo koy liggéey jox kon yaakaar naa ni loolu mooy li yóbbu tey l'islam fi mu yegg mission yont bi sallallahu alayhi wa jàmm la diiney bëggante la diiney waxante lu baax la diiney wóolante la moom mi li tax ni ñu bëgg ko xam nga lan la saa bu waxee kenn du blessé bu blessé kenn du blessé kenn day dugg Touba dugg Tiwaawan dugg dugg dugg Yoof dugg Njaasaan dugg Canaba lii mooy jullit waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraqu dañ koy wax mais ba léegi dund bi ñu ko war a dund dëgg dëgg dëgg dunduñu ko buñ ko dundoon tey li xew tey ci penc mi du xam mag ñi nag ñoom benn lañu woon man ñi ñoom benn lañ ci bëgg gi nga xam ne moom la ñu bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Amadou mu nekk lu am solo loo xam ne yaakaar naa ne ñu bari war nañ ko cee mën a roy ndeysaan eh, sëñ Ndiaye damaa bëgg nga fëggal ma sama waaj ndax eh, ki nuy waxtaanee. nga ne jamonoom dafa doy kéemaan bari xawaarix ak ñëwam. màkk la gane àddina gàddaay fi dem Madina fëggal ma sama waa ji mu fekk si la. doylit naa ba xul kullul baraaya. wallaay uniiloo ma uniiloo bil Maodo nee na daxil itnaamahul kullul baraaya wallaahi uniloo ma uniloo bil mubiini Maodo nee ilaahi yaa ilaahi yaa ilaahi wallaahi ilaahi tawbatan qablal manuun Seydi El Hadji Malick nee na idil ijaad wal imdaad منه والله نبي بذنة عين العيون مولانا إلهي يا إلهي يا إلهي والله توبة قبل المنون دوائر خاف أخال براخ إلى سماء والله ودان له الملائكة أن يديني مولانا إلهي يا إلهي يا إلهي والله إلهي توبة قبل المنون أول وجود أوجده الله تعالى من حضرة الغيب صلى الله عليه وسلم وليس عند الله من خلقي موجودة قبلا صلى الله عليه وسلم لكن هذه الحقيقة لا تعرف بشيء صلى الله عليه وسلم وقد تقطب بعض العلماء بالبعد في هذه الحقيقة صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الحقيقة مفردة ليس ما شيء صلى الله عليه وسلم إما أن تكون جوارا أو وردا سدرا صلى الله عليه وسلم yeah, yeah, yeah, yeah. قبل وعي كل دين مودا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون مودا وعام ثم سار الصوم يوما أتمم بكتلا ثم سار ويرون بكتلا مودا وعام ثم sangu Makka ak Medina doomu Abdoulaye Dia noonu bi mu ñëwee la adduna leer yàlla teral na ku ne waaye bi mu eggee ci njool Makka la ñëpp xam ne mooy sangu sang yi déggal raamal wara nayla fadlin musriina lahu wal fadlu inda rasulillahi xaraaru sallallahu alayhi wa borom benn daram moom rek moo koy dégg ci yonent yi boo nee Adama alayhi salaatu wasalaam ngay wax boo nee Moussa alayhi salaatu wasalaam ngay wax boo nee Daawuda alayhi salaatu wasalaam ngay wax xamidul waaye boo nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay wax doy na teraanga ci njol mbàkk yàlla ni ko lu ma bind ci gënal sama buntu bii maa ko tëj waaye ku la soppul yow yonent bi du fi jaar in kuntum tuhibbuna laha fattabi'uni Thank you. bisu juddu a teranga la altine la tombeel makkatal mu karama la oustaz Hamid lu tax duñu wax bëccëgu gàmm waaye guddi gàmm la ñuy wax judduwul bëccëg judduwul guddi judduwul suba judduwul ngoon xaalu na hëran wa laylan xiila zalika maamulu li makkata aydan fantabir waxumi bés la boo xam ne kenn amul droit mer kenn ku ne war ngaa morom ngir sagoo ko ngir leeru makkak Medina sala sallallahu alayhi wa sallam nga ne lu tax duñu wax bëccëg gi. macha allah. war nañu ko di posé yaa Seyda lu tax duñu wax bëccëgu gàmm. njaay waaye guddi gàmm la wax. te li tax mu yéeme. mooy ñanaaw yi dañu dajaloo Oustaz Hamid wax ak yàlla ni ko comme pexe nga ba yonent yàlla Muhammad doomu aadama jur ko ginnaaw mu gane àdduna bëccëg dafa ñëw ci yàlla ni ko maa ngi lay ñaan comme ki yàlla dese woon moom ngay tiitaroo ndax balaa président de la république di ñëw protocole bee koy jiitu ma adama jaar na fi yonent yi jaar nanu fi waaye bi muy ñëw moom waa ji ginnaaw yow yàlla loo am kii moo la gënal man bëccëg dama lay ñaan mu juddu bëccëg yàlla ni ko dégg naa la guddi ñëw ni yàlla maa lay ñaan may ma nabi juddu guddi yàlla ni ko dégg naa la seddaay ñëw ni yàlla may ma njol màkk juddu seddaay yàlla ni ko dégg naa la tàngoor ñëw ni yàlla may ma njol màkk juddu tàngoor yàlla ni ko dégg naa la mala yi ni ko comme ñun mënatuñoo ëmb yonent bi mënatuñ koo jur ndax jox nga ko jigéen ju ñuy wax Amina yàlla ñun dañu lay ñaan bu njol màkk juddoo nga jox ñu ko ñun ñanaaw yi dinañu ko sàmm dinañu ko nàmpal wa nazaatu tuyuuru kaza uxuusun li xannaanin yakunu ridal xatini yàlla ni bëccëg di nga kontaan di nga ci am paar guddi di nga kontaan di nga ci am paar suba di nga ci kontaan di nga ci am paar bëccëg di nga kontaan di nga ci am paar seddaay di nga ci am paar tàngoor di nga ci am paar altine ñëw na yàlla maa la koy ñaan may ma ko may ma mu judd altine talaata ni yàlla may ma ko maa la koy ñaan àllarba ñëw ni yàlla may ma ko maa la koy ñaan alxames ni yàlla may ma ko maa la koy ñaan aljuma ni yàlla dama lay ñaan may ma njool màkk juddu aljuma samedi ñaan loolu yàlla dimanche ñaan loolu yàlla yàlla xam ni bés yëpp bés bu ne yaa ngi xëccoo judduk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dugal ko ci di diggante dimanche ak altine nabi dimanche la matu gi départ une heure du matin jëm deux heures du matin nga xam ni trois heures du matin bi quatre di jot nag ci la wax ak yaayam ni ko yaay pareel maa ngi ñëw man la sa doom ji ne ci sa biir may waxtaan ak yow dama war a gane àdduna à cinq heures du matin mais yaay bu may gane dinaa wax ak yow jigéen dañuy weex tal njool ci kaw moom la Malick Fawad aram loo kumba cam di nettali ni la maara at la ma ataaha lazi yati nisa ara at janaha tayri nafa ma haale min jusimin hamid yalla xam na ni góor dafa bëgg jigéen moo waral yàlla dig ñu ay urul ay ni aljana yàlla digguñu fa ay jeesineer yàlla ñu fa xaalis xam na ni góor bu ne yaa ngi liggéey ngir tëral jigéen yàlla ñu ni bu yowmal xiyaamee bu ngeen dem aljana ay urul ay ni laa leen jox waaye bi njool màkkay gane aduna lan pareel ñaar ñu jigéen gi ngi ñëw yaay pareel am na laaf boo war a gis yaay pareel heure nangam laay ñëw yaa ji defaru ba jekk sangu jël sër bu weex tàll daal di dekk ci kawam mu ni ko yaay du ma jaar fi doom di jaar di génn pour nga xam ni kenn du njool màkk yaay ci sa jumbox laay jaar waaye pour ma dalal sa xel bu ma ganee àdduna di nga toog trois heures de temps yoo xam ne doo ma gis dana maa war a yóbbu asamaan présenté ma asamaanu benneel ñaareel ba juróom ñaareel waa aljana gis ma waa safara gis ma ñu defal ma lu ñuy defal góor tusngal ma monteel ma sama ay bëñ bëñ bu ne du laal moromam bu ma dellu seen yaay dinaa sol loo xam ne du yow yaa ma koy salal dina xeeñ xet goo xamante ne yaay du yow yaa ma koy xeeñal ndax maay sangu àdduna ak alaxira yàlla bindul jaam buy gis jumbaxu njool màkka ba ci ay oomam falaa yamane en attendant ba ci kanam eh, xar kanam bu am solo la yaa sayda macha allah eh, ki ñuy waxtaane tey alayhi salaatu wasalaam xam naa ñu ngi ci cëppaandaw gi sax ndax tey dañoo amoon mbégte recevoir suñu kilifa. muy suñu xarit muy ñu am solo ci réew mi. muy Chérif waaw ñun dañoo am ci mais bi ñu ko waxee émission bi. lam njëkk a seede mooy diggam ak président Bougane. ndeysaan waaw loolu am solo la. te président Bougane am na wàcc waa ci tarixa yëpp. Uh-huh. ndax lu am solo la. Uh-huh. ci kenn ku ci nekk mustawa bi mu toll. ñu tollale ko fa. Uh-huh. te loolu moo waral mu ne nanu boole lépp ñëpp gis seen kar kanam incha allah jàpp naa ne sëriñ Oustaz Mouhamed ak yaa sayda bind nañ liste mmh. mboolem mmh. tariixa bu nekk ci réew mi mmh. ngir nga gis sa bopp ci seen TV ndax gàmmu 2022 dafa war a nekk spécial gàmmu innovation yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah, muaddamu barakun muxtaramun taalimuhu yanxatimu ala dawi taxaddumi foofu la ñu dëgmal euh, nuy bég bu baax ci téléspectateurs yi ñuy topp ñu ngi nuyu baax sëriñ Souley Diagne jaam ci moom mbégte ñu ngi koy xaarandi moom ci yóbbalu gàmm euh, soxna Bali moom Cheikh Mouhamadou Mountakha borom Daaru Tanzil ñu di ko ziyaare baax mi ngi topp émission bi ak Serigne Mamour Mbacke moom Serigne Abibou moom Serigne di nuyu Serigne Ibrahima Diagne Serigne Ibrahima Ndiaye euh, mu Serigne Saliou euh, a baax la presse ñu ngi lay xaar ci yóbbu lu gàmm ndax dañu war a fas yéene émission bi am solo lool ndax sunu gan yi bëgg nañu euh, ñu tubaat kàlla ko ci ñëw rek booy ñibbi bég lool mm. waaye na xam ne waxtu wu nekk su guddee équipe bi dana ñëw incha allah Seyda Hafsa oustaz Mohamed moom eh, xam nga daf ni daaneel ndax léegi eh, bi bi bi xam naa ni sëñ Ndiaye moo yor bi koy kii moo tax ma ne ko safeel ko waaye macha allah tabarakallah sëñ Ndiaye baat yàlla yàlla wéral yàlla yàlla def ndax li mooy réew mi li eh, li Serif wax dafa am solo mm-hmm. li mooy réew mi Sénégal amuñu luñ mën a exiler lu dul produit bi ñu am mooy tey lu nu xam ci yonent bi alayhi salaatu salaam mag ñee tax tey kenn mun noo indil jeneen lislaam ju bees jeneen sunna ju bees jeneen diina ju bees ndax ñoom tracé nañ ba noppi te gisaguñ leen dab nag ba fii nu yor ndax yëngaguñ ci ñoom ma bàyyi la kàddu gi bala ñoo def benn tour nag ñu mën a euh, tëj mën indi nag li nga xam ne mooy deuxième part incha allah euh, Amidou ñu am mbégte bu baax a baax oustaz jërëjëf sa jërëjëf dafa dafa dugg fa am solo yonent bi. dama dama seen bind ci tableau bi raan yóbbalub gàmm. waaw nan ngay gëmee yonent bi di soxor man mënu moo comprendre. nan ngay jube mawlud di xuloo. déedéet te Amadou Busriw Seydi Hadji Malick wax na ko dafa ni sururun mais ku bokk ci sururun boobu waruloo waruloo defe naa waruloo tooñ kenn. léegi nag li nabi kaana li diini. maa la ko wax. في سرور في سرور وعيد دون أعياد يا دل دل عيون يا إلهي يا إلهي maanaam mbégte moomu ndax warul nekk suñu yóbbal. kañ. ndax war ñun Serigne Touba du sunu maam. Ah. mu nekk yóbbal ci ñun ndax Seydil Hadji Malick du nekkul sunu maam. mu nekk sunu yóbbal ndax. Seydina Limaamul Mahdiyul Muntazar ndax nekkul sunu yóbbal. Hmm. su ruurun ndeysaan. am na bésu defe daal bis bii li ma ci xam lu gàtt la na ngeen ci am mbégte. te bégg googu bu xasee ba dugg sa xol amidun dootu jóg si yow. ndéem gëm nga Seydina Muhammad. oustaz wax nga dëgg. ay yonent bi mu juddoo deux cent deux cent lii la juddoo. deux cent unième bi rasulilaay la. looloo waral alimatu jóge fa mu jóge jan jànku saadu bi jóge ca saadu yee ñëw pour pour seet ku mu nàmpal war a dajeeg rasulilaay. yàlla lépp la préparé. lépp na préparé si ñun mais lim nu sant si ñun mooy ñu jéem a roy Seydina Muhammad wax naa ko waxati ka te kenn du ma ci xëbal bu ma demee New York sax lii laay wax bu ma demee Chicago kii xam ne li may wax su ma demee Chicago lii laay wax ci kanamu nit ña Sénégal ñun li nu am kenn dootu ko am mhm. sama bàyyi daan na wax naan Buxaari yu bokkaluñu dara muslim musaluñu dara nanu xool mag ñi ci réew mi ñu wax seeni wax moo gën donte la ñu def baax na waaye yow wóor na le xilaaw za bi naar mënu koo bind am de seexul xadim dafa wax benn wax dafa ni ku yàlla bindee sàkk ruu mi sama loxo ma téye da nga ko mën dindi fan la ko jëlee ci rasulilah alayhi salaatu wasalaam sëriñ Tuubaa dafa ni at xulta nafsi wa ahli fii jay bi afdalil wara nee na ñi ma sopp kaay leen ma ànd ak yéen dugg ci poos njol mag kan mooy njol mag Sayyidina Muhammad xam nga lu bàyyi lay tëj mën a démb mën a tey mhm. te booba tey kenn mënu kaa dindi kon euh, amidun réew mi nañu joxante loxo rek te waxante lu baax te won ña seen ak jaamal ak teene ba ci doon teralal dégg nga won ña seen ak jaamal ak teene ba teene ixwati lillahi xaalixina na ma déglu li wajhillaahi lu am solo lay wax ni maam Abdou ko bind uusikum ixwati lillaahi xaalixina waaw waaw na ngeen ma déglu li wajhillaahi topp ndigal laa taaxudu dukum aqaaw bi xam ngeen ni loolu gënul dégg anu naana abul abbaasi famtasaloo wattaba'u xawlahu moom yàlla moo ko gënal te yàlla moom lu ko soob rek loolu moo a am ku mu neex nga gëm ku mu neexul yàlla dog na sa xol turux yi ñoo fi lislaam bi ñoo ko doxal na yàlla bëggeek rasulillahi azza wa jal sëriñ si kullim xad amaro atbaahum fi tibaa'i llaahi kenn ci desul sëriñ si ñoom ñëpp wallaahi qad amaroo atbaahum fi itibaa'i llaahi kenn ci desul ku bàyyi yaa bàyyi laakinnahum faaloo mimma bi umiru min rabbina ci jotal kuy wax ni tuubaak ti waawan ñaari dawla lanu fii dawlatin tawarul wallahi kooku xamul na ngeen ko wax yéen ñi xam kooku na noppi moo di lëgën mu xam li moom fadl ali ci loxoom la newul seen dawla jiitu na loo bañ bañ du fi jóg waxal ba xottiku yaa malhuunu yaa xëttu xol yow mi wax loolu doo jullit doo ko kenn xam loo ci doon ba di wax soo bàyyiwul yàlla mooy yàlla kii lay toroxal tuuba tuuba tuuba tiwaawan tiwaawan ñaseen jaamala jaamala canaba canaba kazaat kum ci teralal baax na jërëjëf Serigne <laughs> sëñ bi ngi lay sant bu baax am nañu mbégte waaw waaw am nañu mbégte maa ngi la koy ziarel Serigne euh, soxna Momi Kébé ak Serigne Ablaye Tagé maa ngi leen di ziar bu baax sama sama soppe yooyu maa ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm ndeysaan wax dëgg yàlla kuy ñaanal président Bougane nag bu baax non affaire la affaire la affaire man ak Bougane affaire la <laughs> affaire ba génn ci ah. waaw affaire la sa waay xam na li may wax yow sax xam ngi ñaanal soxna Momi bu baax a baax mm-hmm. Ablaye Tagé ñu ngi leen ñaanal Cheikh Mansour Diouf it sama euh, waa jooju ak waa Sénégal Ablaye Dia. defe naa man maa doon màggal ca këram maa yoroon kër ak sëñ Fallou transitaire maa yoroon seen màggal waaye ku dem Touba keroo xam nga ne sa xol sedd na na leen nax ma nga def leen tànk la mu liggéeyoon moom la ko yàlla fayal maa ngi ñaanal président Bougane sama xarit la lool yàlla ko yàlla sàmm sàmm njaboot gi c'est maa leen ñaanal bu baax a baax di ñaanal ñi ma bokkul plateau bi a yàlla yàlla dafa wéral baat di ñuy ñaanal sama doom ji muy maam ran daf ma fan yi nag daf ma yeb ndeysaan ah. lu ma ko wax mu teggi ndeysaan dafa takk ñaari jabar bàyyi ma man ma yor benn rek ndeysaan mu takk ñaar léegi su ma ko oyte naan deel xool heure yi non benn <laughs> daal macha allah sama xarit daal nañ ko bàyyi rek ami dun yooyu ñu ngi lay ñaanal bu baax <laughs> xamante nañ du yàlla yàlla fay la yàlla yàlla wallaay yow sama sopp nga waa jii toog nag euh, moom day man may moom rek wallaay loolu am na nday moom mooy moom yàlla ko yàlla fay yàlla yàlla def jàmm ci réew mi asalaamaaleykum ñu sant ko bu baax gërëm ko hmm. euh, ci taxawaay bu am solo bi kon nu ñuy def mooy bàyyi euh, suñu Mouhamed rek nga mhm. tàggatoo gaa ñi nee nañ waxtu wi mat na sëkk mhm. euh, tey suñu réalisateur yi tuwaar kàlla liggéey bu solo oh, euh, sëñ ba mhm. ak sëñ Mara Formos ñoom ñoom Chérif gaa yi tuwaar kàlla lañ lool ci liggéey bi ma bàyyi la nga tàggatoo mbokk yi jox leen dig daje suba xam naa ni insha allahu taala nii lañu koy defee saa su nekk yóbbalu gàmm lay doon mboolem turuxu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa dafa yaatu bés bu ne man yaa lenn ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunu invité bu ko defee ñaan yàlla jàmm yàlla ko yàlla def ci réew mi mbooleem fu waaye di gàmmu dem gàmmu ji dellu ci jàmm te lépp di njool màkk sallallahu alayhi wa sallam kontaan bu baax a baax mm-hmm. comme ni ko cheikh bi waxee rek weeru mbégte la maa bàyyi ñes doon wax naan هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله moo tax ñun ñëpp ci beeg kontaan ci ni ñu nar a àndee gars yi ci plateau yi borom xam-xam yi war a ñëw ak tàggkat yoon ci yàlla Mouhamed yi war a ñëw Mouhamed wax ñu kan mooy yoon ci yàlla Mouhamed Chérif ñu ngi lay bégg bu baax lay maxtaar di la jaajëfal seen Jamil yow tam ñu ngi lay bégg Hamidou di la jox rendez-vous suba xam naa sama du ko nangu mukk waaye tuwaar kàlla euh, ñu ngi gërëm bu baax a baax waa diwaan décor ñi nga xam ne ñoo taaral jataay bi mhm. euh, ba mu mel nii di ànd ak euh, seen télévision bu mag bi seen TV ci jataay yu am solo yi mhm. ñu ngi leen di remercier bu baax di xaar yeneen annonceurs yi mhm. ci guddi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax ci la lépp di xewee sëñ Ndiaye du ñàkk ay kàddu yooyu tàggatoo ak bokk yi la doon seetaan am mbégte ci yow dama doon xaar saak bee ngóor si yow rek si rek si Baye Serigne ma joxe sama addiya ndax am nañ mbégte bu baax a baax ci eh, njàng bi ñu ngi defee saa su ne bu gërëmee ba pare daal di tëjee woy nag euh, di sant bu baax di kontaan ci plateau bi ndax sunu sang bi ñu ko bokkal ndeysaan Chérif euh, Ibou Séni Laay mm-hmm. ku sopp ñëpp mm-hmm. yàgg nañu bokk ak moom jataay ak magam Cheikh Al Hadji Mansour Sy Jamil da nga xam ne mooy taawu xalifa bi di xalifa sëñ Babacar Sy wax dëgg yàlla li Seyda wax ci moom rek noonu la demee ku baax la bu ko ñëpp den déglu rek ñëpp am jàmm bëggul kenn am lu lu ko metti tabaarakallaahu yow it tabaarak kenn yow ñu ngi lay gërëm bu baax tabaarakallaahu Amadou tabaarakallaahu sunu doomu ndey Oustaz Mouhamad tabaarakallaahu nga xam ne noonu ma ko waxee ci tàmbali bi noonu la demee di kontaan lool yàlla na ñëpp am jàmm ñu ñaanal xalif généraux yëpp yàlla na yàlla may leen wér guddal seen ban fan bu ñu tëddee ah sunu maam Seyd Aboubacar si Mansour ah, xaalif généraux yëpp dem géew ak i rakam suñu pap Maodo suñu pap Serigne Mbaye si Abdou ak seen taaw boobu di sëñ si Jamil ak i rakam yëpp tabaarakallah mbooram këru këru diine yi ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru tedd bi ñu tëjee ko plateau gërëm maam mhm. eh, ko moom i muy ku baax waaye lii dama bëgg plateau bi ñu defee ji ko Chicago xam naa bis président def tournée moom xaw yéen a koy defee foofu incha allah ca New York <laughs> di gërëm ñu doon am solo sax ci mbooleem xalif généraux yi ci réew mi mhm. ku soxla réew mi baa nga bëgg dara ci réew mi faaw nga jaar ci ñoom ñoom la yàlla jox miftaaxu dunia mhm. ñëpp ci ñoom la ñuy jaar yal na yàlla wéral leen yàggal di àndandoo ñu waxtu wu nekk kon nu gërëm ñi ñu àndaloon ñëpp ci eh, caméraman technicien réalisateur ñëpp ñu ngi leen di gërëm ndax gis nañu yitte ji ngeen bu may gis eh, oustaz Mouhamed di firi wala Serif di firi wala Seyda di wax ngeen di refléter image sëñ Ndiaye ma bàyyi la nga tëjal ñoo ko. Euh, jaajëf jamin bu la neexee sëñ Mansour si jamin lu la neex rek tëjal ne. bushra lana bil aarifi rabbaani. ay béy yu gàtt la yoo xamante ni borom daara ji moo ko way alxaaji Mansour si jamil bushra lana bil aarifi rabbaani borom daara ji moo ko njukkalee Serigne Mansour Sy Djamil ndax ñoom ñaar ñoo ko benn tërandoo ñoom ñaar ñëpp baayu xalifa bii lañ leen tuddee tey bushra lana bil aarifi rabbaani borom daara ji nee na dama koy xool mu jàngee Sorbonne jàngee Ndar ñëw Tiwaawan nekk Ndakaaru di taawu Serigne Moustapha Sy Djamil di premier sëtu Serigne Babacar Sy di sëtu Mame Malick Sall ma ne fu ma jaar kañ doomi Serigne Moustapha Sy Djamil ji بالعارف الرباني يا سيدا borom daara ji nee na busra la naa mbégte ñeel nañu ñu ne ko lu xew mu ni bil aarifi rabbaani bi ñu amee ki nga xam ne koñ xam yàlla bu doon examen jël na première di taaw Seydil Jamil wa bil xalifatil azim cheni borom daara ji nee na ko soyez le bienvenu sa wayjur borom daa sa way Serigne Moustapha Sy Jamil yaay xalifaam sa maam Serigne Babacar Sy yaay xalifaam sa maam Malick Sall yaay xalifaam ahlan bi min mursidil akrani déggal borom daara ji nee na ko alxaaji Mansour si Jamil ñëwal da ngaa war a gindi sa waa jamono di nga wax français di nga wax olof di nga wax anglais di nga wax arabe ahlan bi min mursidil akrani borom daara ji nee na ko dawal ñëw doomu Serigne Moustapha Sy Jamil da ngaa war a gindi sa génération fi sairil abaxi bil burhani Sy Jamil ci mboolem gox yi sa tànk dina fa tege mboolem avion yi di nga leen yéeg fu doomu aadama nekk di nga dem gindi ko ci siraatal mustaqim xat faaka dalji la bil fadaili الكاتب وفي الشمال aywa mu ngi noonu tabarakallahu yal na yàlla fay njaay <laughs> bu ko defee nag ñu daal di dem bu suba ak jàmm insha allah taala yooyu yàlla yàlla na yàlla defal a jàmm jàmbaar nga loolu dara mbir boo ko bëggee rek yàlla dafa ciy def alal ndam ak sax macha allah jërëjëf Saas jërëjëf yéen ñi bëgg lu taaru te ànd ak qualité Diwane décor dikkati na de ak promo bees tax xool leen fi chambre à coucher bu yànji ak li mu àndal yëpp à huit francs waaw huit francs laa la wax de teg ci may la lu dàq